mais noo noo gisee temps yi agression xam ne bëri na trop si ñu bëri wax ne euh, la ñu war a delluwaat si lii waaw tey si tey di ko ñaawlu di ñaawlu agression yi vraiment loolu noonu communiqué naa sax tey suba si benn invitation ma amoon gën a yaatal ma parce que mbir bu wàllu la mbir bu yaatu la te dafa bëri ay cause xam nga noonu la demee tey si tey nax message bi ñu mën a lancé mooy ngir yàlla war a suul la ànd leen ak seen ngor ànd ak seen dignité te gëm yàlla regal yàlla waaw. te tamit maa message yu ñuy lancé état bi ñaar la mooy que ni maanaam wàllu drogue yi parce que booy léegi dañuy jël lu ne dañuy jël yamba volé ak ay pils booy façon drogue bu ne gaa am na si taan bi moo tax booy di xabtalu waaw mooy li ma la ñu ko fiy dugal état moo la ko gën a xam man loolu xaw ko waaw moo ñu ñaan état ñu gën a saytu wàllu boobu noonu xam nga ak tamit maanaam ASP yu ñu rajee da nga leen indiwaat takk der yi da nga leen renforcer xam nga zone yi gën a chaude fii si biir taan bi da nga fa gën a maanaam yokk sécurité xam nga mën a jël sax ay takk der gaan yu fay veillé xam nga te yàlla tax baay mbir yi ñu ngi dégg agression fu ne ay crime gaan mosuñu dégg ah? doomu ministre wala mboqu ministre bu ñu rey quoi du dëgg waaw wala bu ñu agressé kon te yàlla tax baay nañu dimbali waa ñun baadool ay gaan ah yasaay noon la demee di wax ni tamit gars yi tamit na ñu gën a maanaam sell te di maytu jamono bi gaan xool dafa doy waar quoi moo tax moytu quoi ah? yesaay noonu la demee waaw alors jaan jëf di leen bégee noonu la demee di bégee senegal yëpp yu seeraan ñaan message yu la xelaa ah. noonu la demee saame Tidiane ba Messi doom maintenant on le touche pas ah. noonu la demee yaa salaam yàlla rëbb na ku yee fi nag waa nekk nit gaana ah. tous ñebe waaw muy bud budi